amul ci saxaaba kenn ku mës jóg benn bis moo xam bisu altine la walla fukki fanag ñaar ci weeru gàmmu nga ni dama koy màggal ndax muhammad ci la judd ku xam loolu rekk defiyee naa la nga wan ma ko ku ko xam képp ku xam ci saxaaba yi benn saxaaba bu musa toog benn bis yokk julli ولا مو نياك نلاو ولا مو نافلة ولا مو جامو يالا ولا مو سكر لان مو تانغير كده بارسكة تيلا محمد جدو كو تي خم بن صحابة ديمبالي مانغير يالا نغا ليرال مكو مدل لو جناو كو خم تي تابعيني جارو سخم ايدم تي تابعيني جناو يرانتي بي سونيت جوغينك نبدا ام نبو رفت vraiment amna bida bo xamanteni war nañ ko mëna rafetlu daal te yonent bi ne kullu bidaatin dalaala gis nga mbokk yi kullu bidaatin dalaala dafa leer nañ saay-saay rek moo ko bëgg la lëndëmal waaye daa leer nañ ndax ki ne bidaa bu rafet am na ndax du yonent bi nga bëgg a tuumaal alquran de nee na yonent bi yaa ayyuhal rasulu ballig ma undila ilayka min rabbik fa in lam tafal fa ma ballagta risalatak moo tax boo fi toogee ba léegi naan gàmmu bidaalaak danga tarde ah, dama ne la biddiw yi bàgg biddiw yi màggal nañ yonantu bi rabi xàll yi màggal nañ yonantu bi ci dajee juboo rabi géej gi dajee nañ màggal yonantu bi asamaan si màggal na yonantu bi suuf si màggal na yonantu bi lali buur ya sax buur ya la ñuy bon bon seen lal yi màggal na yonantu bi safara wañ doon jaamu junnee xat xam junnee xambukan màggal na yonantu bi ci fay bu xayrata saawata màggal na ko ci ñiis lii la lépp kon màggal na yonantu bi natir bi màggal na ko kon boo fi toogee naan kenn du gàmmal yonantu bi ngaa dof abi jëlin sax abi lahab li muy bon bon màggal na yonantu bi ndax keroog ba mu juddoo su wëy batu di ab jaamam wax ko ko mu ne ko goreel naa la bis ni ki yàlla loo ko lebal mu fay la ko rawatina nga jaaree ko ci bi yonent bi génn na àdduna rakkam gis na ko di Abbas nu sa borom def ak yow mu ne ko xaw na maa rey ci mbugal ngir li ma bañ soppeem bi waaye ah kay bisu altine bu jot nag bisu gàmm dañ may génnee ci tuusi safara yi di ballal soow samay baaraam ma koy macci foo ko jëlee mu ne soow mi sama jaam bi joxoon yonent bi mu nàmp ko di suway batu ma bég ca ba goreel ko moo tax yàlla di ma goreel ci safara soow mi ko sama jaam lebaloon sama jéebéer bi moo tax yàlla di ko faye sama baaraam ma koy macc kon boo taxawee ne gàmmu bidaa la abi lahab ne la tuug bu ko fi waxeeti su ma sañoon xat mi yëpp di gàmmu mawlidun xafafa al azaba an il ammi abi lahabin man daawu shaqaawu la maam xalifa waxoon ca mir aatu safa kon xam baax na waaye xàmmee ko solo waaye boo xamul noppil soo xamee te xàmmee woo noppil soo xamee xàmmee te ràññee woo noppil bala nga wax daal da nga war a boole xam xàmmee ràññee id qaamu fa qaalu lu cay tegu rabbuna rabbu samawaati wal ardi lan nadoo min duni ilahan laqad qulna idan shatata waaye boo xamut commencé mbel mbali yàq rek ngay def uh, waa waaju baax ja suñu baay ja xaaji ibrahima saaxo mu ne xam-xam bu tuuti bala nga xam bonam mi ngi mel ni ndox mu tuuti mooy sangoo dem ba saabu sa xarxaram bi xëbal sotteekoo ndox ma mu jeex taxamaatoo ma neen ndox su boobaa ñàkkoon na sangu di sa tilim baa ko gën xam-xam bu ndaw noonu la mel borom bu waxee rek yàq munu ca dara jaxase rek euh, dugal ca lu ca lu ca bokkut ak génne ca lu ca bokk te loolu lañ bëri la ci ji jamono. yonent bi juddu ñëpp bég kon ndeke bi judd bi bu xamee lu ca bég xam ñu ca bég xam nañu ca bégut bay bidaaxal seeni borom. di jéem a dugal seeni borom safara loola lépp mi ngi mel ni day delluwaat ci iblis ma ca bégutoon rek loo rek la ña ca bégoon nag ba def ca lañ ca def dañuy delluwaat ca ña koy ña cay bégee rek di ca rendi ay nag di dagale nit ña di leen waxtaanal ci yonent beeg jaar jaaram ak la ca xaju